GFM ban journaliste la GFM est-ce qu'on enveloppé wul télé et radio yeeg société bi voilà les léegi non non GFM c'est c'est le média seulement ou toutes les sociétés de de de non non attends la question que je te pose uh-huh. euh, Youssou Ndour a d'autres sociétés uh-huh. que seulement la télé et la radio uh-huh. la télé et la radio tout du GFM ok loolu laa bëggoon xam Futurs Médias ok GFM la ñuy invité bañ ku leen mam waaw bañ nañu bañ ku leen mam rek Youssou ah yow tamit seen baay Sonko mooy tànn nag xale boobu dafa dafa xale boobu dafa nekk ci état de mooy seen baay de mooy tànn de. non mais quand même ñëpp mënuñ dem ko si on a waaw mais mooy tànn ñi ko neex dama ne la pourquoi ñu boycotté seen TV dañuy defanteeg seen TV. seen TV c'est pas Bougane Sen TV c'est pas Bougane. ñoom peut-être ñoom Sen TV c'est pas Bougane li tax ñu ñu xam ne Sen TV c'était Bougane c'est pas Bougane. Mhm. ñaata nit ñoo fa jaar ñoo xam ne Sonko lañ wala état lañ. Mhm. ñaata nit ñoo fa jaar defar seen bopp ba rafet ñii mën a nekk ay maire tey ñii mën a ubbi seen i sit tey te ñu ñàkk jom lool nag fu ñu toog di ko xaram. te ñu jaar ca télé ba nag di ko xas moom borom télé bi di ko yàq lu ne mais mosoo koo dégg mais au moment où seen TV ñoom ñu kaas xam nga deux heures mënoon nañoo génnee ca tamit. non ñoom kaasuñu. bo bu ata ata ata bi tey non xaaral moom laa lay bugaan xam nga kan moo mhm. ñi nga xam ne ñoo fay liggéey te xëy na voté lu ñu Ous euh, euh, euh, bugaan. Mhm. xëy na vote lu ñu Macky Sall xëy na Ousmane Sonko la ñu voté. Mhm.

seppi Bougane Gueye Dany organisation am seppi ITV la ñu comprendre lu bëree bëri waaye dañ di ay dof rek. mais ñoom ñëpp nekk ñu fi parce que doo doo jël yenn tele yi yëpp yóbbu leen site internet yi aussi nit nit dañuy dañuy dañuy dañuy seetaan te am nañ wàll moo tax benn dem na. seeni site la ñu woo. seeni site yan. ah Amina yow <laughs> seeni site la ñu woo. xam nañ lu bëri de seeni site daal la ñu woo. yow la ñu woo woo nañ gor woo jàmbaar woo bete bete. <laughs> woo ko ndeyam gërëm. <laughs> en ñàkk nañoo woo nag. ñàkk nañoo woo jàmbaar ñàkk nañoo woo bete bete ñàkk nañoo woo ñu seen ndey gërëm. IT ITV 7TV 2S Sen TV. moo loolu mooy waral ni ñëpp mënuñu dem. ñàkk nañoo ñu seen ndey gërëm. woo ñàkk nañoo woo gor xam nga woo jàmbaar woo bété bété xam nga la dernière ñàkk nañoo woo ku ñu seen day gërëm avec la président Macky Sall euh, ITV demoon na Abd Alassane Samba Diop hmm. moo leen moo leen représenté woon y avait ITV Seneweb euh, RTS je pense ak euh, je pense que c'était ça de. Seneweb ji jeng. Seneweb de léegi dañoo. waaw xam nga déjà ñoom demuñu yàlla suñu borom ñoom demuñu. waaye yow dimbale ñu waay yow tamit nag. Amina bul ma bul ma te bëgguma wax bu mais dama ne la daal ñàkk nañoo woo ñu seen ndey non mais attends ñu jàmbaare. qui se sent morveux sa non mais attends tu sais man maay wax man wax mais déggoo may fay wax. déggoo bugaan ngay wax. non mën ñoo xam a choisi sa presse. mais effectivement c'est sa presse <laughs> c'est sa presse parce que tey ñi amal problème boo leen choisir kay ça veut tout dire te dafa am problème. Mm-hmm. Diomaye dafa am ñoom problème woo seeni booy journaliste seeni jeune jeune reporter di leen wan di leen jaxase di dóor bu Diomaye li mu def dafa grand en tant que président de la république nga war a jubóole war a boole ngay def yëfu fumisterie di def yëfi seytaane yëfi seytaane mooy nga woo xale yi presse yi di leen door ci kaw ci sa ci seen patron de presse dóor leen seen kaw patron de presse moo leen di wan ne yéen mu wax wan leen ne yéen li ngeen di fayeeku seen patron de presse yi ñoo leen dul fayal nangam bu ñu melee ni man gëm ko léegi yow yaa ngi yóbbu xale bi chômage ndax mën na dem joteeg patron de presse am wala mu yóbbu ko ci yoon on sait jamais yaa ngi dóor xale bi ci kaw euh, mais am. loolu yoo xam ne loolu troisième dame loolu moom mosoo koo wax. li ngay li ngay mën a wax yëpp loolu.